dina jàppal coono. dëgg la bu dee fa jaar. yow yow yaa fa jaar waaye waaye. non non non xool soo ko dee. yow yow yaa fa jaar. xale ngeen fi. waaw. ah yow yaa fa jaar yow yaa fa jaar. danaa dem ma jox li ma doon. bu tànnee nii. waaw waaw waaw. ko benn naan jabar ba la ko xaar. nañ dem li ñu wax nañ dem li ñu wax. mën nañ xaar mën nañ xaar. on peut attendre. ah. non wala dara bëgg ma sol costume. loo sol baax. loo sol baax la baax. loo sol arrangé na. sol ko sol costume. loo sol baax. mën nañ xaar mën nañ xaar. on peut attendre. ah. wala dara bëgg ma sol costume. loo sol baax. loo sol baax la baax. loo sol arrangé na. sol ko sol costume loo sol baax. loo sol baax. loo sol baax. waaw bu la neex na sol jàllaa. waaw rafet. sama genre bi baax na. dëgg la. <laughs>